Euh, fekk fi euh, koo xamante bi nii kenn nattaabali ko si kër maam Khalifa Niass ndax sabar na si sabar goo xamante bi nii wax dëgg yàllam euh, moom toujours sax dale si soññi pour waxtaan ak moom si maam Khalifa Niass tey nag fekk nañ ko fii si atam bi fii si géejuwaay si wetu jumaay Seydi Aji Mansour si macha allah ñu di ko wax Lamine Mouhamadou Lamine Sakho al imam moom tam dëkk fële sa Fass Sakho macha allah bokk ci waa côté boobu noonu di xeet bi ni mu ku yàlla may sax wax dëgg yàlla jàmbaar dëgg dëgg dëgg fa tabaarakallaahu moom lañ seesoon tey bëgg bëgg mu waxtaan nañ ñi si maam xalifa ak tasawuf maam Khalifa ak liggéeyam maam Khalifa ak mboolem loo xamante ni wax dëgg yàlla doon na ko euh, liggéey si diine ji fa tabaarakallaahu lañ bëggoon tey Mouhamadou Lamine Sakho waxtaan nañ si waxtaan boo xamante ni macha allah tabaarakallaahu kon sëñ bi ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo.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 wa an jamii xulafaihi wa radiallahu wa arda ani xalifat alaj Muhammad Niass al Kawlaxi nasaranallah wa nafaanallah bi barakatihi bokk yi ñu ngi nuyu site bi di Néeru Maram mi nga xam ne tey moo ñu fekk fii suñu ëtt suñu daara di waxtaan ak ñun ci jëmu ju sawar waxtaan jëmu ju tedd joo xam ni boo ko tuddee xol yëpp yëngu muy Cheikh maam mu Al xalifa Niass ñu gën ko siiwee ci maam Khalifa Niass bu saas jaam yooyu ñu ngi lay dalal ci sa الحمد لله آه، فإن لله بين الفينة والأخرى عبادا أفزازا عباقرة أصيادا ينسبهم منائر هدى شامقة ويقردهم أنوار رشد شاتعة ويعينه معالم علم نافع وأساة قلوب عنفاء وأتباء نفوس حكماء يقتبس من نورهم الموفقون نورا إنهم مصابع الدجى تتجافى جنوبهم عن المداجع يدعون ربهم خوفا وتمعا ومما رزقناهم ينفقون ومن ومما رزقناهم ينفقون يتميزون بشخصياتهم المتعددة الجوانب الذين تسعر أعمالهم الصالحة بعد أن غابوا أولئك القوم لا أبقي بهم بدلا غابوا ولكنما الأحوال لم تغب هم الشيوخ هم الآباء يا لهم هم الأتباء أفديهم بكل أبي ومن هؤلاء العباقرة الافذاذ الشيخ محمد آمين تونس المشعور بمام خليفة نس عند الجيل الجديد بل هو قائدهم ورائدهم رضي الله عنه الذي نريد أن نتحدث عن بعض آياته الصوفية التي نهتز بها ونروي الضمان فلا يغيب بوك جليت يتدي ديغلو نيرو المرام نيغلي نيو نيل زيارة di wax ni dafa bokk yàlla sax amul aada waaye Oustaz Thiam dafa bokk ci doxalinu yàlla jamono june ja ca topp yàlla tànn ay nit ay jaamam jaam yooyu nag dañ leen wax abaqir su arab ne abaqir moo ñoo xam ne ay kéemtaan la ñuy nekk ci seen jamono ñu nekk ay sang la leen samp nag mooy soorooru njub yu yëkkati ko leen taal mooy leeru njub yu kawe la leen di ràññale nag mooy xam-xam ak jëriñ jaam yàlla yi ñoom nag toujours bu ñëwee dañuy ñëw ci jamono boo xam ni dañuy fekk xool yi feebar ñoo koy opeere génnee dangat ja ca nekk génnee feebar ba dugal ca yiw dugal ca garab goo xam ne daf koy faj naka noonu ñoom it ñooy fi eh, ñooy ñooy ñooy yi bakkan yi tey xam nga bakkan dafay feebar ni jëmm di feebaree seytaane not ko seytaane man ko ustaas ñoom nag bu ñëwee ñooy jël bakkan yooyu daal di leen dugal ci hôpitalu gëm yàlla jox leenu médicament wu sopp sayidina muhammad saa sallam di leen di dàmpee nag ndàmpaayu seydi Ahmed tidiane chérif kon mu mel ni maam xalifa kenn la koo xam ne ci docteur yooyu la bokk Mam Khalifa ñëw na ci jamono fekk xol yi feebar bi ñu feebaree seytaane not na ko ñu entré ko ci hôpital hôpital boobu Mam Khalifa bi mu ñëwee li mu njëkk def dafay dafay opéré bu xaree dënn ba gis feer ma seytaane génnee dugal sopp sayidina muhammad nga wér nga tane yore sa bant mu jël sa bant boobu def ko mi sayid ahmad tidiane nga sukkandikoo ci moom ngay ñëw massage par semaine massage ba mu lay jox salaatul fatih kon moo tax xalifa ñun ndaw yi maam xalifa ñu koy tuddee docteuru xol yi di médecin wu feebar yi ci la ci ni ni nga gisee docteur yi jël nit di opéré di faj ba mu wér ba mu dellu këram ci ko feebar jàpp noonu lay seetaane noonu lay bànneex noonu lay bakkan noonu lay euh, euh, bëgg-bëgg àddina di attaqué ab jullit ba dootu tal jullim dootu tal yàllaam dootu tal yonantam dootu tal kennam góor gii nag di xalifa moom passé na médecin waaye dañ naan proviseur boo xam ne dafay opéré góor gu baax yal na ko yàlla guddal fanam wax na ma ca Taïba mbay ñoo maam Fall Buri hmm. mu ne ma man bi may dem ci maam xalifa ñes di jàkkaarloog moom benn araf woo xam ne sama tur sa soo ko bindee mënuma ko mokkal waaye keneen ba ma njëkkee gis góor gi di yey guru bam ba ba ba ba gémmiñ gi xonq mu galax ndi ko tuur ne lu waaye soxla ne ko yéene te bu mu ko wax keneen laa yéene ne yan naa ma yàlla ubbi ba lépp lu xalifa taalifa mokkal ko tey jii ma lay wax oustaz soo demoon fekk góor gi fa mu toog nga ne antalil kaw ni bàjjet na wa baaw wa tajalat bi noori kazalmaaw muy firi muy jàng di tari ba ci ay ayin wa ayu xat bin tabadda wa fii li kiraam irtiqaaw tafahum mooy bunt bu mujj ba ci am ziyam ba te mu ne ma sama tur ku ko bindoon mënuma koo xam kon docteur bi boo ne ko jàkk rek mu faj la wax naa ci waxtaan wi passé ne góor gu baax gu ñuy wax sañ Aliou Sakho ne na toog na yanna ko yàlla yërëm fa yi la fi jóge ku bëggoon am xalifa la taalif na ci moom wax na ci moom lu bari nee na benn bés mm. dafa ñëw Euh, pour wane ne maam Khalifa ñëwaguma sax ci waxtaan yu piir waaye wane ne doktooru xol la dafa am juróom-ñaari bakkan yoo xam ne alxuraan tudd na leen bakkan bu ne alquran am na nu ko junjee am na bakkan bu ñuy tuddee an nafsul al amaara mooy bakkan boo xam ne daf lay digal lu ñaaw am bakkan bu ñuy tuddee an nafsu al lawaama bo demé ci suratu yusuf ne inna nafsa la bi am na bu ñuy tuddee nafsu naw lawaama bakkan boo daf lay yedd am na lu ñuy an nafsul mulhima ya ayyuha nafsul mulhima bakkan bo xamna daf lay ñenkawal ay mbir am lu ñuy tuddee nafsul mutmainna moy bakkan bi nga xamna dafa dal ya ayyuha nafsul mutmainna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiya am bakkan bu ñuy tuddee aradiya moy bakkan bo xamna lu yalla def rek gëreem nako kok nak maqam la dañ cey tollu am bakkan bu ñuy tuddee mardiya mooy boo xam ne bala fee génn yàlla gërëm na ko am bakkan bu ñuy tuddee kamila nafsul kamila nag moom la wali yu du am sëñ Aliou ñuy nettali moo tax lii ñu tiim mbindam loxo sëñ Aliou la kayit gi moo ñu mag nee na mu ñëw ci mam xalifa ne ko dama gis ci alquran juróom-ñaari bakkan ma bëggoon nga sépareel ma nga xam ne góor gi xalifa mooy docteur góor gi ne ko mm. nafsul amara day na mel mooy buxlu nay wal xirsu ak xër ci àddina wal amalu ak bëri mébét wa takaburu ak rëy wa shahwatu ak bëgg bànneex wala asadu ak kañaan lu waaye amul yàlla na ko ñàkk wal xaflatu ak sàggante bu julli jotee du ko yëg señaal yi mu ne ko bakkan bi rek xamoon ko doy na mu ne ko bu ñaaree bi nafsu lawaama mooy bakkan bi lay yedd mooy allawmu toujours mooy bëgg a def dara rek ustaas ne ah loolu day rafetu daal di koy bàyyi mooy nafsu lawaama wal fikru te day xalaat toujours ci mbir wal xabdu te day ngëbu ci lépp loo xam ne seytaane daf ko ci puus du dem wal ujbu te day yéem li yàlla def maanaam fu mu toll rek bu dënnoo mu yéem li yàlla bu ngalawee mu yéem ca yàlla bu xiinee mu yéem ci yàlla te wax jii du sama wax maam xalifa muy firi bakkan yi wal ak dëddu maanaam bakkan bi nga xam ne lawaama la day dëddu àddina du bëgg xumb xumb maanaam bu nit ñi toogee buñ dajee sax day daal di génn dem ci fa wéet maam xalifaay wax a lafsul mulhima mooy ñetteelu bakkan bi maam xalifa ne ko kooku sifaatu am melam assaxaawatu mooy day tabe lu mu am joxe ko wal kanaatu doy doylu doylu ba nga xam ne da yaakaar ne jeexatul dara yontu bañ ko laajee ne ko luy koom mu ne xanaatun euh, kanzun laa taf naa mu ne doylu mooy ndàmb loo xam ne du jeex maam xalifa mu ne bakkan bi ñuy tuddee a nafsu al mulhimatu kooku dafay tabe wal qanaat day daylu wala ilmu day bëgg xam-xam wa tawaadu waaw torox ak torox lu bokkul soo ko taajee ca kaw moom mu toog ci suuf wa tawbatu te day tuub dem ci boromam wa sabru maam xalifa nee na bakkan bi ñuy tudd nafsul mulhima day mën a muñ wa taxamulul ava lu ko nit ñi teg mu mën koo muñ am na ku maam xalifa di digal yàgg na ku jàngi ba mokkal alxuraan jàng xam-xam bay ñibbi daara góor gi ne ko soo demee sa xel mi dana ko sa xol bi jox ko yàlla sa xel mi téel ko sa bopp sa jëmm ji nga jox nit ñi da nga ñett yi ko xaajale sa xol bi moom jox ko yàlla maam xalifaa ko wax nit sa jëmm ji jox ko nit ñi sa xel mi nga téyel ko sa bopp juróom ñeenteelu bakkan ba muy nafsul na mooy bakkan bu dal maam xalifa nee na meloom mooy jóodu tabe tawakkulu wakiilu ci yàlla wala xikkamu ak am sagesse mooy xam-xam boo xam ni loolu anglais dox wisdom mooy xam-xam boo xam ni daf lay jege da nga koy ñeme wa shukuru ak gërëm lu yàlla def mu ne askay noonu la wari daa ak d'accord dogali kooku nag moo jëfee wala yi ñoo koy amee an nafsu radiya maam xalifa nee na juróom ñaareelu bakkan bi meloom mooy zuhdu day dëddu àddina boo leen passé les seen yére wala nga gom ko dañ koy nomo mooñaxe ba mu nooy wal ikhlaas day am sellal wal waracu day am sàmm wa tarku ma laa yaani min jamil ashiyaati lépp lu ko dul jëriñ du ca sonn nafsul mardiya nag mooy bakkan bu ñu gërëm maam xalifa ne us sifaatu am melom usnul xuluqi mooy jikko ju rafet lay am wa tarkuma siwallaa lu dul yàlla yoonam ne wu ca lutf ak ñëwent bil xalqi day yërëm jaami yàlla yi wa taqarrubu ilallahi taala fu mu toog nag mu ngi def lu ko jegeel yàlla ci woor ci saraxe ci dimbale yaa dégg nga ko ci jeex eh, jox nit ñi seen àq ak yërëm leen wa tafakkuhu fi azamatihi toujours rek tafakkur fi yi day xalaat ni yàlla réyee daa bi ma qasama allah lu jafe lépp lu yàlla oustaz Thiam maam xalif ne na bakkan bu ñuy tudd nafsul mardiya lu yàlla dogoo rek d'accord na ko loolu nag mos na cee joxe misaal mu ne ki nga taseel ci buntu jàkk bi mag ñi xam nga ñoom alal ju bëri junni lañ ci daan compte maam xalifa nee na ki nga taseel ci buntu jàkk ji mu jox la junni nga dem ba ca kër ga am ku ñëw sàcc la junni mu ne ñaari bindeef yooyu ku ne yàllaa ko yebal ci yow ak la muy dox nee na ku àggagul foofu rek amagoo nafsul mardiya moom nag yàlla defaloon na ko a nafsul kaamila nag ah li jamii ma la jamii ma zukir min asifaat alxasana kooku nag moom lay xud bi am moom lay awtaat yu am mooy bakkan bu mag mat lépp lu jàll ci melo yu rafet daf koy am mm. lépp lu ci nekkoon ci mbir yu kawe daf koy am mm. lii la maam xalifa njëkk a jàngale ci bakkan yi xam kon oustaz su ma la waxee ne la mm. fajkat la woon docteur la boo xam ni suñ na docteur rek xel yëpp hôpital la jëm mais alqulubu yasda'u kama alqulubu tasda'u kama yasda'u alxadiidu yonent bi nee xol yi dañuy feebar comme ni weñ gu ñuul di xoomaage noonu la xel yi xoomaage xiila wa ma jila uha ya rasulallahi ne ko yonent lu koy fomp mën a qiraatul qur'ani wa ziyaratul qubur ngeen jàng alquran ak ngeen jàng jàng alquran boobu nag mooy thème bi ak maam xalif xam nga nit ñi soo nekkee léegi toujours ndaw ñi dama koy wax toujours ne bu leen foog ne maam xalifa way rek ak tagg Seydi Ahmad Tijaani moo doon liggéeyam bu ñu yaakaar ne taalib ci yonent bi rek moo doon liggéeyam mais maam Khalifa dafa amoon waqaf waqaf nii boo xam ni foore woo ko réye woo a magama nett li maam Daam Njaay mu ngi fii mu ngi ñu ngi ko suul ca ci Fass Thiaxo mu ngi gaañu 1991 ñu mag ci mag a mag ñu yàgg-yàggañ ci la bokk mos lañ ko seeti bokk ne mën a cey Baay Khalifa moom waxam yëpp loolu la cey Baay Khalifa waaw moom daal waxam yëpp cey Baay xalifa xamna ne gor ga jomal nako ben bis nañu dem di waxtaan ak mom nako waw dañ bëggoon xam rek mam khalifa nu alquran mune a ah, mokalon nako na te ñongal ko mam khalifa musta tek alquran ci suuf dede oustaz mam khalifa kamilam yeb ci kaw armoire lañ koy tek wala ñu boba ngatan mo xew dañuy rab ngatan tegal ko ko ci kaw mu tok buy jang alquran bu sëggee ca dar sumba di koy jàng amul benn doomu aadama nag boo xam ne da nga ñëw fekk maam xalifa yi jàng nga mën ko waxloo toujours daf daan wax naan kii jàng duñ ko nuyu kii rob duñ ko nuyu kii nodd duñ ko nuyu ki nekk ci wanag di def xadaarul xaajatil insaniya kuy faj aaju doomu aadama duñ ko nuyu juróom yooyu daf ko daan baamu di koy baamu di koy baamu di koy baamu maam daam jaay nañu se maam xalifa ak mokkaloon alquran xafisal quran hmm. saanahu wa ajaadahu hmm. wa allamahu wa taallamahu wa raahu ak riayatin mutadakira kon ku mokkaloon alquran na nañ ko xamee noonu moo tax boo gisee ci taalifam yi li ñuy wax insijaam da ngay fekk te suñu ay alquran yi di ciy taxañu mokkal gaa ëppoon maanaam maam xalifa dafa daan tuuri du tuuru léeg-léeg nga gis koo xam ne waxtaanam yëpp du mën a indi juróomi ay alquran maam xalifa benn digg rek mën na ci wax fanweeri aay yu bokkute saar kon dafa mokkaloon alquran ñoŋal ko rafetal ko mm. jàng ko mm. jàngale ko mm. sàmm ko dëgg-dëgg sàmm te di ci daan waaraate nag néew na d'accord daanay dellu ci Sidi Ahmed Tidiane Chérif ndax mooy wasilaam daanay dellu ci bayam Abdoulaye Niass ndax mooy ki juróom daanay dellu ci Seydina Muhammad na mooy sangam waaye téere bi mag bi nag mam Khalifa ci la daan gën a dellu góor gi nee na góor gi boo ko fekkaan muy jàngal xuraan ci misaal gis nga mu ne gone gu xiif ñu suukaro ko soow jox ko muy naan wala yaayam jox ko wen muy namp na yitti yittewoo namp ba walis leneen lu dul loolu mam xalifa soo ko fekkaan muy jàng alquran noonu lay mel benn wéykat nee na fatarahu yaqarahu hisbahu mutalazizan da ngay gis muy jàng dogam ye ya. waaye nga yëg ni kii li muy jàng daf koo ñor daf koo neex daf ciy bànneexu bu boo ko nuyoo loolu noppam day jor bu ko déggee sax bu càmmooy bu du ko dégg hmm. su paree nag ca ba ca baaxam nga ak yëg ak nga moom Cheikh Al Khalifa ne la ah góor gi baal ma dama doon jàng alquran di dégg waxi yàlla ba mënuma dégg waxi nit ustaas jam dégg rek eh, wax jooju ne may dégg waxi yàlla mam xalifa ba mënumaa dégg waxi nit mu daan jaamu yàlla lool ci alquran di ko daan wéetal yàlla lool ci alquran fonkoon ko daan koy jëriñoo mag nee na ma suñu nijaay Alaaji Mbay Saaxo nee na maam xalifa àggoon na ci alquran boko fekke muy jang xam nga nit ñi dañuy ñew ci kilifa yor yor naan biik sama bop bey metti sama tank bey doon metti sama dama rir le fas waaw moom bu togan ci mbaaram mi oustaz ñeppay ñew ñëw <laughs> te kat mbaar mu ñepp fa daan dajé waaw xam nga nak salum dañuy waxtaan buñ toge kilifa yi di waxtaan mam xalifa nag lu bari daf daan dégg euh, daf daan déglu seen waxtaan suñu waxee ne ah diw wéewi rafet na diw ku baax la mu ree ndeysaan ak bañam yu jekk yooyu ak bi jawam bu jekk ba ci ñi ko gis nañ ko nettalee boo tuddee as rek wax ci moom lu jaadu rek du la waaye da nga ko xam ci kanamam bi ñuy jàng maqamatul hariri ba àgg ci ku ñuy qaaqa ibnu shawrin qaaqa ibnu shawrin ku baax la góor gënee dañoo toog ak qaaqa ibnu shawrin di waxtaan suñu waxee lu neex lu baax mu ree bu ñu waxee safaan loo xam ne jaaduwut mu daal di ñëkkal xaqanam daxu ki sinnin in nataqu bi xayrin wa in bi sharin abusun mitraqu xaqaa ibnu shawri noonu la meloon suñu àlli ne na ma ambata maam xalifa ñes mu ñu ko daan jàngal ba ak ci rek mu ne ambata bàyyi xalifa xam nga mag ñooy wax bàyyi xalifa ñun gone ñooy wax maam xalifa waaw mu ne xalifa boo tuddee ku baax mm. wala nga tuddee xadis mu ree waaw ba pare nee nañu ma li ma bëgg neelu maanaam xam ak ñi koy déglu yëpp maam xalifa dara dérangé ko ci àddina hmm. mayu kenn nag dérangé ko hmm. mayu kenn lu waaye am yéene ko muy rakkam muy magam muy naataangoom muy dëkkandooram lu waaye am ci may ak yàlla nangul na ko xam nga lu tax hmm. moom xam na ne di ko yàlla may du ko nangu te lim ko may doy na ko wax na ko ci woy yu bare bare bare bare bare bare bare bare na jàpp naa ci alquranul karim jàpp goo xam ni deme mm-hmm. yàlla mooy dootu jeex ba ilaa yumi diini te mm-hmm. eh, maam xalifa ustaas ci am mu gën a yàggee ci suuf nag ñu koy gën di xam mm-hmm. ak mu jot ñuy gën di xam ay mbiram ci bind ak yëpp moo tax waaye kit ba ne zahabal xalifatu zahabal xalifatu wal xilaafatu indahu mashkuratun fi kulli shay'in qad jara signali sax mu ne xalifa dem na waaye xilaafaam ngi rafetal na ko benn doomu baayam mos na ko wax ji rafet ne ko xalifa jërëjëf alaaji Mohamed am alaaji Mohamed Aminatu Ñas jërëjëf ba muy ñetti yoon mu ne ko waaw lu xew mu ne ko yaa mag yaa njëkk a jàng boo duggoon ci njaayam fas it ñun ñëpp ci njaayam fas dañuy nekk ndax yaay taawu kër gi boo duggoon ci njaayam mbaam ci njaayam mbaam la ñuy nekk boo nekkoon ci forot ci forot la ñuy nekk nga ñëw ñëw ci li fi bàyyi nekkoon ba ku tëb ci ñun amut fu muy jaar lu du fi nga jaar kon moom Xalifa Ñas xalifa mooy wis yu waaye waaris ëpp doole moom waaris Abdoulaye Niass la xam nga oustaz buñ ne xalifa mooy ku fi sa baay jógee rek nga toog fa yaay xalifa ba yaa ko wuutu waaye mën naa am doo waarisam dégg ko waaye maam xalifa moom bàyyam ba mu fi jógee dafa toog ca xilaafa ga ba pare toog ca la fa bàyyam toogoon moo tax muy waaris am na ku ko wéy ne ko yaa waarisal majdi yaa saadal wirasati yaa mu majjadan maajidan baaha bika zamanu mu yow ya da nga ñëw donu ma Abdoulaye Niass di mom donu sidi Ahmed Tidiane di mom donu yonent bi du mom motax bo xolé suratul khalifa leg leg da lay niru yonent bi ci lewet ak mbax nga demaat ba kanam mu nir la sidi Ahmed Tidiane ci wilaya ak xam-xam léeg-léeg mu nir la ba Abdoulaye Niass ci may ak uuf njabootam kon ñett yi dafa nek li ñuy tuddee shay'un mu'assirun fi khalifat Abdoulaye Niass fee fii fii xalifat maam maam xalifa ñas maanaam ni yonentu bi daan dundee ki saxaabaam noonu la dundee ki taalibeem tey su ma waxee loolu neex naa xam parce que ñu nit wax dëgg yàlla waxu newuñ sax ne ay borom xam-xam lañ waaye am na luñ dund ci xam-xam am na luñ ci xam maam xalifa boo bëggee gis dundam tuus xoolal yonentu bi rek ni mu nekkoon ak saxaaba yi def leen di nawle jël ay doomam may leen maam xalifa njabootam gi ñu jigéen ñëpp ay taalibeem ay dëkkandooram la leen jox kon xeebu leen nidoog Sidi Ahmad tijani ci wilaya waaw dafa nidoog Sidi Ahmad tijani ci wilaya de gis nga amad Sukayrij gi amna lu bindu bind ko kaolax mag ñam fa fek daf ne lepp bepp bepp wilaya bu Sidi ahmad tijani am bes digi tay yalla rangal nako mam Khalifa bam moy khatmu ak katmu waaw khatmiya ak katmiya mhm. waaw kooku moom kenn dootu kanku du Sidi Ahmed tijani mooy gratu mooy généraux wala marisal mm. ñaar yooyu moom kenn dootu ko am waaye Ahmad Sukari moo ko bind boo xamee ne Serif Tayib ñëw na ci réew mi mm. maam xalifa gënale ko mm. defal ko taraanga way ko boole kooku njabootam defal ko lépp ba mu ñibbee nettali mbir ma Ahmad Sukari moo bind leetar ne maam xalifa ñas bépp xila bépp garaat bu ñuy xam nga tarixa bi dafa mel ni hiérarchie bu militaire kere boo duggee ci tariqa bi da nga melni gobi bu nek Dakar bangu mag ñi jox la saatu faatee ni la wird ñett lazim ñett boog wird wazifa sikar si aljuma manam ñu ngi lay jangal entraînement nangam ak nangam ak nangam ak nangam so demee ba ca kanam ñu ni officier nga am nañu tuddee ñu ne ñu ne kon ki tijaan la léegi officier nga léegi nangu ñu militaire nga iarchi bobu ñu dembe kaam ñu na ah, sa saa ke legi léegi waliyu la nga top iarchi bobu ba ca ñu ne fardu la dem ba kanam ñu ne ah diw monté léegi jaamio la mm-hmm. dem ba ca kanam ñu ne ah kii kat léegi passé na jaamio kii ki léegi aqtaab la mm-hmm. ñu ne passé na léegi aqtaab léegi lan la ñu ne xutbu la léegi passé na xutbu xawsu la xawsu nag benn lay nekk ci jamono moo tax moom loo xam Seydi Ahmad Tijaani ne ko xawsul bariyati miftaahul wilayaati mm-hmm. cheikhu tijaaniyu misbaahu dujunaat yaa cheikhu yaa xatmu yaa nuural wilayati ca ta iyam bu rafet booba nga xam ne la wax kan mooy Sidi Ahmed Tidiane bi xam nga nag hiérarchie bi mu def ci tariqa bi mm-hmm. maanaam liggéey bu réy bi mu ci def mm-hmm. ci lañ ko garaate nag nommé ko mm-hmm. nomination boobu nag bi mu xewee nag bi mu nekkee xaw sub tariqa bi nag nga xam ne léegi luy ñëw ci tariqa bi ci moom lay jaar danga xam ne dëgër na lu tontu muy noonu lu xalaat nga xam ne léegi hujjatu la fi tariqati tijaan yi maam xalifa dem na barangoo garaat boobu nga xam ne li nga xam ne Seydi Ahmad Tijaan yi bindu ko ali arasim bind ko hmm. kenn bind ko moom sañ na caa tontu hmm. waaw maa la wax loolu àggoon na foofu nga xam ne lii lu ñëw la kenn xamul benn comme lislaam rek nim ñëwee ni hmm. nga xam ne yonent bi waxu ci lii saaba yi waxuñ ca maam xalifa am na àggan ci jamono gi nga xam ne lépp loo xam ne kenn waxu ko ci tariqa bi moom rek moo ko moom moo ko sañ a wax dafa am ku ko mos a laaj ne ko Seydi Ahmad Tijaani Chérif kañ la gane àddina kañ la kañ la kañ la kañ la kañ la kañ la fi jógee kañ la kañ la fi jógee bob mu ne ko bisu alxames la mu ne ko kañ la gane àddina maam xalifa na dar ne ah xam naa wàllu wi de seen yépp moom seen benn bés lay topp waaye bés boobu de man def naa ko alxames téere yi nag binduñu ko mm-hmm. <laughs> waaw mujj gi luñu tuddi seet mm-hmm. dem nañ ba yëg ne rek maam xalifa rek li wax moo mooy wax ja moo tax ma ne la dafa àgg ci hiérarchie boo xam ne moom la jaaree ci tariqa bi mm. ba waa Maroc yi nga xam ne tey ni nga xamee ne diini ji mu ngi dellu ci Màkka ci Kaaba gi Madina mm. tariqatu Tijaan mu ngi dellu ci Faas Ahmad Sukayri ji ba fa nekk moo bind ne lépp bépp garaat mm. boo xam ni ñu ngi koy nommé nit ci tariqa bi nommé nañ ko maam xalifa Ñas ba mooy xatmu ak katmu waaw maqaamatul xat mii ak kat mii hmm. moom bind na ne ku ko sàkku sax yéeféer nga hmm. waaw maam xalifa bind na loolu boo gisee nag moo tax nag te lépp nag hmm. mu ngi ko jaalee ci alquran bi nga xam ne moom la daan dund eh, benn wuykat wax na ne maam xalifa suy waxtaan rek day gis aaya alquran yi di rot waaw su su daan waxtaan rek aaya alquran yi isa taxaddasa amran bi amrin wa ma yanaahu yanaahu waaw nee na buy waxtaan rek day gis ay alquran yi di daal di rot hmm. waaw ay yi di toftaloo ay yi di toftaloo ay bu jeex baneen ñëw ay bu jeex baneen ñëw hmm. wax naa la ci gannaaw ne la njaboot gi buñ toogee ba bët seen ñu fekk ko ci mbaaram mi hmm. daan ñëw nag naan ko waaw góor gi man day démb sama fas dafa réer ñu ko waaw góor gi man dee demb sama biir a doon ñëppi lu mu ko fekk muy jàng rek loolu lay bind waaw la ko wax jox la ko wala mu liimu la ci lool Baye Dame Ndiaye nee na maam Dame Ndiaye nee nañu am na ku ma sa réerle fas jógee dëkk bu ñuy wax Mbuuma. Mbuuma mm. mu ci Saalum. Mm. diggante Kaolack ak Kër Madiabel. Mm. moo Kër Madiabel soriwuñ. mu ñëw ne ko góor gi man de damaa réerle fas. mu ne ko waaw mu ne waaw mu ne ko maam Xalifa ngi jàng ba ci xusuuhu fa xulluuhu sumal jayima saluuhu. xam nga ay boobu tey ku xam. Hmm. lami wax yalla ngay tepp ko ab yéeféer nan japp len ko yew len ko yobul len ko safara mam khalifa bind jox ko hmm. nako waw so demé nak def ci ndox rek dal di sorti ko fasu dan nek hmm. waji da fay dafay ndox mi di sorti sorti ko ci pan bi fasu wi dina am dekk fas jaar na ci gannaaw ba ñew ba taxaw ci daaj bi waaw fas wi jaar na ci gannaaw ba ñew taxaw ci daaj ndox mi wara sorti safara di koy def ci siwo bi fas wi moom dugal bi di naan Hmm? waaw waaw loolu yàlla defaloon na ko loolu ci alquran moom xalifa nag hmm. lim wëy ci alquran moom ak aay lim ci wax hmm. loolu moom yaakaar naa ko doon génnee wëy wax ci alquran war naa mat junniy wëy ak lu topp waaw nga xam ne ci biir wax ji yépp da koy xam ci alquran lay wax soo demee ci euh, balaaxa bu ñuy jàng am na lu ñuy wax jinaas waaw yooyu nga xam ne alquran daf koo indi ak lu wax xalbu kullun fii falakin ak lu ñuy wax iqwaawu wooy woo xam ne yëpp feelu amarin la maam xalifa yëpp def na ko ci biir téeréem ñun bi ñu nekk Taïba Mbayeen 92 17 18 ñoo sëñ Adi ñu ngi koy nuyu ci émission bi di rafetlu taxawaayam ci kër gi ak ñoo ñoo fa nekkoon ak sëñ Mouhamadou Habib bu alaaji Ibrahima bu alaaji Omar Niass waaw ñun ñii ñoo bokkoon ba alaaji Omar Niass doom bi ñoo Mouhamadou Habib ak man ak sëñ Haadi ñoo bokkoon benn néeg ca Tayba Mbayeen mm-hmm. di jàng ca daara ja góor ga fa nekkoon yal na ko yàlla yërëm mooy Cheikh Mamadou Ghali mm-hmm. man mu ne xàttey bayaan yëpp la ko dalee nag ci maani ak badiyo mm-hmm. lu ci àtte rek maam Khalifa indi na ko ci téere moom daanay def buy way buy ja buy jàngale woy woom àgg ci bayaan rek mën na koo indi ci waxi maam Khalifa ñas ba woy wa jeex ba woyoo jeex moo xam jinaas la moo xam tashmid la moo xam tarchiu la maanaam fànni moo xam moo moo moo xam moo xam euh, li ñuy wax euh, husnul munqalib wala husnul ibtidaa hmm. ahkaam yépp maam Khalifa daf koo indi ci biir ay waxam te la lépp mu ngi ko naanee ci alquraanul karim hmm. moom nag mu bindi wa anzalallahu qur'anan tilawatuhu haajat alayhim riyaha dhulli wal qajali kitaabuhu mu'jizun bil qaybi yuxbiruna wa shifaa'u lima fi nafsi min ilali jeex na góor gi mu ne yàlla wàccee na benn téere bu ñëw alquran mu ne jàng gi nga koy jàng mooy yëngal xol yi yéeféer yi ba tiit nañ am nañ gàcce am nañ kersa te dootuñu jekk ba ilaa yawmi diini maadaama lam yaqbalu tilawat alquran féeg nanguwuñ alquran ji yéeféer yi nee nañ dootuñu am jàmm xoolal kii bi muy wax lii ak léegi xam nga euh, maam xalifa ñu bari dañuy foog démb la ak a yàgg maam xalifa ku yàgg yàgg yàgg yàgg la waaye jeexit yu baax yi mu fi bàyyi moo tax mu mel ni su ñu la maam xalifa rek nga yaakaar ne maam xalifa di démb démb la fi jógee te góor gi ku yàgg yàgg yàgg la parce que koo xam ne mille huit cent quatre-vingt-un lañuy wax loolu yàgg na sëñ bi jógee fi 1929 1959 loolu suñ la koy wax dangay yaakaar ne euh, góor gi bërki démb la waaye euh, li sëñ Haadi bind ci moom ne saaxibul basamaati rasiqa wal karamatil xaalida euh, ma ne ko turu téere bi ni mu dundalee góor gi sax da ëpp na ëpp na xam nga te maam Xalifa ba seeloo tey bëriwut ay enregistrement yu ñaan baatam a ngi nii hmm. ndox naa la ku nëbboo woon la mm-hmm. waaye wilaaye la kenn mënta suul mm-hmm. maanaam mayu yàlla la kenn du suul moo tax góor gi feeñ ne na yàlla wàcce na alquran joo xam ne jàng ko dafa yëngal xol yéefar ya mm-hmm. ba nga xam ne ñi gëmul alquran ci toroxtaane la ñuy dëkk ci gàcc la ñuy dëkk mu ne kitaabu mujizun bi ghaybi yuxbiruna wa shifaa'u lima fi nafsi min ilal mu ne téere bii di alquran man maam kalif maa ne mujis la te mujis amatut mooy lu kenn mën a tut mbaa yëg nga ne waay oh, yoo oh, waay daaw balaa déwén keneen way ko gën a rafet wax ju waay wax daaw balaa déwén eh, nit wax lu ko gën a yéeme alxuraan ba ko yàlla waxee léegi mu nekk ci junniy at ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom benn jàpp juróom ñaar ba léegi kenn mënut wax loolu moo tax maam xalifa ne kitaab boobu moo gisun téere la boo xam ni dafa lotte ñëpp bil ghaib bi yuxbiru na lim lim ñi wax ci faddu dafa bari hmm. wala boy jang xisatu musa hmm. ak yonent bi ñu sori jooni at ak lu tek hmm. mam khalifa ni alquran di lay nekk li julli di ni ñu xamee sax yahudi xamé wuñ ko musa waaw xisatu Isa alayhi salatu wassalam qala Isa tay bo demé ci jang bi église bi lañuy wax yépp ci Isa xamuñu ko parce que li ñi wax nouveau testament lu ñuy wax new testament la koy anglais di wax moom lañ def new testament in english mooy nga nga nga nga divine maanaam mbir mi nga tuddee ko noo xam ne duu ko wala nga indi ko ci noo xam ne duu ko ba lawoon néewtu maanaam loolu nag oustaz yàlla def ko def ci alquran alquran boobu bi mu ñëwee dafa devenir Esa ne doom la ju amul baay waaye am na ndey du yàlla nag waaye doomi Mariama la alayhi salaatu wasalaam moo tax euh, ñi bañ ne Isa du jaamu yàlla yàlla la mm-hmm. maam xalifa daa daana dégg naa bu daan wax ci alquran ba ni lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wala almalaikatu almuqarrabun mm-hmm. ne na Isa day jombuluwul moom nekk di jaamu yàlla mm-hmm. c'est parce que yàlla lépp nu waay toll rek ne yàlla toll moo la ëpp maam xalifa jàngal nañu ne kon alquran mooy kitaab mu ñox mujis ijaaz lottal mooy loo xam ne kenn mënu koo def xoolal rek soo demee ci nuun wal qalam mm-hmm. na mu yéeme te benn laa rek ci ci phénomène alxuraan bi amam xool na kitaabu mu'jizun wa ma yasturuun mm-hmm. ma anta bi ni'mati rabbika bi majnuun mm-hmm. boo demee ci yeneen saari nga gis alxuraan na muy tegalee baat ya ba nga yaakaar sax ni lii xanaa way la fekk du way moo tax maam xalifa nag bind ne yàgg na ne kitaabu o mojizun mm-hmm. bil xay bi yox bi na o shifaaw mm-hmm. li maa fi nafsi min ilali kon li ma waxoon ñëw na maam xalifa kanaa bi daan wo daan woy moom danaan danaan nekk si àll wala waaw ah, déedéet maam xalifa maqaam la daan woyee mm-hmm. jërëjëf xaal yàggut te loolu daañ ci ñëw xaal du lu yàgg maqaam moo ëpp doole xaal xaal mu ngi paaka boo xam ne da ko koo dugal pëcc sémmiñ nga ñëw dugal ci euh, fourneau ba mu boy ba xonq bu ko neexee mu ne du ma sémmiñ soo ne ko loo doon mu ne safara laa nga ne ko sémmiñ nga mu ne laal ma nga xool loolu mooy xaal boo ko laalee daal di lakk waaye bu ñu ko teggee teg ko lu yàgg nu muy defaat doonaat sémmiñ maam Khalifa daawut wéyee xaal maqaam ci la daan wéyee <laughs> maqaam mooy loo xam ne dafa sax ci wéy xam nga am na kër yi dañuy toog ba ca kanam ñu ngacc maam Khalifa mosul ngacc parce li way ëpp na ñaar fukki junniy way li mu way laa la wax de hmm. ëpp na ñaar fukki vingt quatre mille ëpp na ko ci way am na nag luñ ci dajale rek moo tax ñu naan diiwaanu ah, xaatimatu durar ak ak nangam ak nangam d'accord waaye eh, mag mu baax nee na ma mu ngi wax maam Amadou Lay ñu ne dañoo yàgg sonn ci gëstu maam Xalil hmm. maam du Lay yaa wa seer ma topp ci way kooku dañ ko daan fekk ci Madina boobu am na juróom-ñeent fukki at ak ñaar fekkee maam Xalifa di woon dara daan woon sax ba war na góor gi ni daan yéyee eh, guro mu ne xalifa am dëkk yoo xam ne sax dem na fa rek def na foo yoo xam ne ëpp na téeméeri ñaar téeméeri way hmm. loolu kenn mënu koo dajale waaw maanaam am na nag lu ci doom yi góorgóorlu ak sët yi hmm. ba dajale ko waaye li maam xalifa way laa wax liñ ci gis mooy lii hmm. waaye yi nga xam ne moom daf koo way dafa bari mu kon way ci moom duutoon xaal maqaam makaam la daan woyee من لم تلق ألسن لسن الحرب معربة عنه ففيه آه، فقيه آه، ترى ما كل منتحل ففيه ترى ما كل منتحل نانا داغي غيس من عربي نونا جيم نانكو ديف سي واخ جو عربي دون مونا ام موك لي القران ام من قديم معنى حديث اللفظ رونقه يعني به كل زي نرق وزي جدلي مام خليفه نينا القران جي معنى ما يغنا baat yi ñoo sosu waaye taaru gum taaru amul kenn ku ko man ci alquran mu ne lu yàlla mën a wax lu nit mën a wax lu wax wéykat yi way way mhm. lu bind bind yi kat yi bind bind mhm. bu njëlee seen bind ba comparé ko rek ak alxuraan alquran da leen ni daane kon maam Khalifa dund na alquran mhm. jëf ko wax na ci xam nga léeg-léeg am ku sopp alquran waaye mënu caa wax am ku wax ci alquran waaye dund ko wax naa la sopp na alquran wuyi ma woy ci gannaaw yépp moo ko way ci alquran ak yeneen yu ñëwul mm. dund na ko mooy bu daan jàng alquran boo ko nuyoo du la mën a fay mm. day mel ni koo xam ne ma ngay namp soow mu neex ci weenu yaayam mm. xale boobu noonu du du tal lu du soow ma maam xalifa buy jàng alquran noonu la daan mel da def day am ay yoo xam ne da kay jàng bekaa mu siggi xool ñoom yaa faamay njaboot gi nekk ci gannaawam mu firil leen ko te yàlla daf koo barkeeloon laa illa maam xalifa jaahil murakkab koo xam ne xamoo dara ci àddina bu la waxee nga dégg balaaji ibrahima nee na ma sama baay nee na ko képp koo xam ne nee naa la ma ne nga ne naam rek mën naa dugal ci yow xam moo tax ña waxuma sax ñi jàng waaye ngay gis ku jàngut sax xam waaw mu koo xam ne jàngul sax la daa wax jàngul waxuma ñi sant ñes waaye lu aju ci ci ci wilaaye gi rek mm. eh, dégg nga ko soo jàngul sax xam kon boo jàngi géej ngay nekk moo tax benn bés toog nañ di yéem ay borom xam-xam jëru may tudd tur ju mm. bokk ci kër gi mm. suñu nijaay nañu da ngeen xamut seen seen seen maam rek moo tax maam xalifa daanay toog wax benn hadis firi ko may la ñey dëbb ca cour ya sax dañ koy mokkal mm. waaw ñey dëbb ci biir gën ya sax dañ koy mokkal léegi kooku mooy xalifatu alaaji omar xalifatu ah, maam xalifa ñes ñoo xalifa xalifa ñes ci tasawuf nag gannaaw bu mu amee lim am ci alquran yépp nag ci la dugg ci tasawuf boo xam ne mu ngi ko jaare ci bàyyam xam nga euh, maam xalifa jëggaaniwul dara jàngeewut fenn ñaanee ruut da fenn bàyyam ay sëriñam bàyyam si Ahmad Tidiane ay sëriñam si Ahmad Tidiane yonent bi ay sëriñam moo tax maam xalifa silsilaam ñeex xam waa amul jaar ci kii amul jaar ci ku ko ku la jur alaaji abdoulaye ñes ku la jàngal alquran alaaji abdoulaye ñes ku la jàngal kankan alaaji abdoulaye ñes moo tax mu ne fa turqu tanfudu kulluha wallahi min min gayriha raaji irimaa mu féqil aadaay mu ne tariqa ma jàpp nag am naa ci garante amna ci ndëgër lay amna ci luma leer ndax tariqa yëpp man khalifa yëg naa ne tariqa yëpp dana jeex ba mooy tariqa bi mu ne nag lii ma wax bu ma ci poñe demal ci rimaax bu Cheikh Mor Foutiyu nga xool ko maam khalifa dafa fonk rimaax ba def ko defoon kunaacha bind ko bu amul sara loo ko laaj ci tariqa bi mu ne ne lii la Cheikh Mor Foutiyu wax ko fonkoon Cheikh Mor Foutiyu moo tax bi mu lay delloo ci tariqa yi ne dana jeex ne bul ma poñe man khalifa waaye poñel شمر فوتي المجاهد الكبير والعالم الأكبر bon ma ci rima bi nga xam ne mooy teqale guntux ji teqale ndongi noon yi soo demee da nga gis ne tariqa yëpp dana jeex falakam usila zalaamu qalbin aathimin min dikriha wan zaabil adwa ñu ne ko waaw moom xalifa tariqa bii nga dugg moom loo ci gis mu ne laa ay laaj ngeen ma lu ma sawar waaw fekk ngeen ab sàmm daal ngeen ñaan ko yet wala ngeen fekk am maçon bu tabax kër nga ne ko dëkkee ko falakam aussi la bëri na bu dëñalee moom ci tariqa bi zalaamu qalbin asimin lënd mu xol ku bakkaar min zikriha xam ngeen ci dara ku daan tux ku daan naan ku daan def lu bon ku daan jël alali jàmbur kem ne ba mu naasiri xaq bin xaqi walhaadi ila siratika al almustaqim wala ali qadri miqdari azim sànni cigarette ba bàyyi deri jàmbur ya bàyyi këri jàmbur kon waxam na ne tariqa bi dafay dëñal lëndami xol wan zahabil adwaay mu commencé nag di naan nag ca leer ya in kunta za zama in farid min wirdiha asba dulaali ka atiqu saabaay maam xalifa neen doom sët xarit mbokk dëkkandoor jabar rakk waay waay boo maratee bu nekk fii di may tànqal demal naan ca tariqa ba dootoo mar ku ci naan ci Seydi Ahmad Tijaani Chérif dootoo mar ci lay wax naan man zaqa تعمل الشرائب القومية دريه صدمة كسرابة كجيوش الطلع بالمرافعة القطع إلى إنه ما يبقى التنطعي آه، سنيالي مقدم في برمك بانك آه، من التنطع ما في لكو بانك نينا صدمة في من كان نان تلا غاي نان مو يك لا غاي يك من بو مرتي دمال نان تي طريقة بي دانا سل دانا مان لتنال اقسام مطلب أو مقصد من فيض الطامي بريا برواي nee na da nga mun am la nga doon sàkku lum sori sori hmm. da nga mën am la nga doon ut lum sori sori hmm. ca mbëbb mi nga xam ne géej la goo xam ne guy dekke dekkele guy màndal man nag man xalifa duma leen nax duma la man xalifa nee na mm-hmm. oustaz mm-hmm. du ma ne la defal lii te du ko def ak taamuruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum googa laay bañ man man xalifa lu ma la wax maa ngi ca mm-hmm. fawarattu root na haadal wird lu dawi xasban maa uhu nga xam ne ndoxam ma neex na ca laa man dégg naa da ko daan jox ndox sax mooy la naan naa ci géeju Seydi Ahmad Tidiane Chérif waaw njaboot gi léeg la ñu toggaan ñam indil ko jox ko ndox mu ne ah xanaa rek waaye léegi laa naan ci geejju Seydi Ahmad Tidiane cherif wala yalla xamna ko min walidi nak wa mu ne man nak man khalifa xamna naa ëlëk ëllëg day xam bay man day sama wayjur man moy sama sëriñ moy sama sëriñ ci islam moy sama sëriñ ci tariqa bi ndax moma jox tariqa Tidiane ma ngi fi may euh, bëgg ñëw moy dafa am bés ci karama yi rek malaab laa ñës toog bu guddi moy imam khalifa seigne ali sax mo ngi ko net li moko bind ni wa min karamati lati hasalaha fi at-tasawuf al alxaaji muhammad khalifa Ñas innahu kana naiman fi baadi layali fa ayqadahu waliduhu alxaaji Abdullahi Ñas wa qala loo qum watlub min allahi ma turidu ya xalifa fa hadihi saatu ijabatin insha allahu taala fa qaama xalifa wa qala talabtu min allahi subhanahu wa taala دوام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ولا ولا ولا ولا تشكك سيالي ساخو بيننا تي مام خليفة مي دا فام غودي ا بايام يكو خليفة جوجل خمغا كوي دوندو دي وخ خليفة كي لامول فين كون سخور يو كون دونوم تيكي تيريم تاكا سي دوخام مو جوب جمال جاب mu japp mu ne ko julil ñaari rakk mu julli mu ne ko xalifa dama bëgg nga ñaan juróom-ñaari mbir ci heure bi waaw heure nangu ñaan la ne maam xalifa jóg ne ko juróom-ñaari de bi may njëkk a sàkku talabtu min allahi subhanahu wa taala dawama ru'yati nabi sallallahu alayhi wasallam dima ma bëgg daal bàyyi fu ma toll di gis yonent bi bàyyi gi ne ko am nga ko ci sens rek la maam xalifa jàkkaarloo yonent bi mu taxaw mu bind nag lu ma juróom-ñaari way ne ante lil kaw ni googu foofu la bàyyee ko xam nga woykat yi bu ñuy taalif dañ def xasal mm. waaye maam xalifa dafa fekk ñoom mouhamadul busiri naan wax naan huwa mm-hmm. wa man huwa ayatul kubra li muctabirin mm-hmm. wa man huwa nicmatul uzma li muqtanimi mm-hmm. maam xalifa moom dafa ñëw ne ko anta lil kaw ni bahjatun wa baau wa tajallat bi nuuri ka falma nu ñëpp jàng nañu arab xam nañ ne anta kenn koo jàkkaarloo la antuma ñaar ñi nga jàkkaarloo moo xam góor la am jigéen anti yow jigéen ji ma jàkkaarloo antum yéen mbooloom góor mi ma jàkkaarloo antunna yéen mbooloom jigéen mi antum yéen mbooloom góor mi maam xalif waxut antuma waxut anti waxut antunna waxut antum anta ne ko yow yonent bii ma jàkkaarloo laa wax ndax ñaan naa lii ci guddig yàlla wan na ma la bahjatun wa baa ulil kaw ni àddina lu ci rafet yow la lu leer yow la wa tajalal bi nuuri kaval maaw lëndëm mi ngi fi fekkoon sax sa leer gi dàq na ko benn maam xalifa ci ñaareel mu ne talabtu alayka ya rabbi at tasarrufa bismil azam li sañal li saxoo ko bind bàyyi fi yaa rabbi maa ngi sàkku ci sa turul ismilahi lazam wi gars yi xëccoo nga defal ma ca secret ba lu ma ci neex def maam xalifa tur wu mag wa lu ne la ci def baaxal na ci ku bon jubal na ci ku dëng xetlu na ci ku ku jaaxle mm-hmm. waaye nee nañ sax yàlla jàpp na ba soppi ci ruux mm-hmm. soppi ruux mooy koo xam ne dafa bëggoon doom bu góor lool pour tuddee ko moom xalifa mm-hmm. mu am doom muy jigéen bañ xool ne jigéen la mu ne ko ah góor gi xanaa ngaa fàttee ñaan dañoo bëggoon muy góor ñu tuddee leen mu ne waa dem leen góor la gaa ngi ñëwaat fekk muy góor waaw loolu def ko daan def daf daan tasaruf ci bismil azam ci turu màgg wa loo xam ne nag yaa kenn ñi mu ko wax ci rajo kenn ñi mu ko wax ci émission bu ñetteel ba watalabtu alayka ya rabbi almaarifata taam bika ala an takuna maqaaman la xaalan mu ne ko yàlla maa ngay ñaan ci sa tedd la xam gu waaye xam bu mu nekk xaal mu nekk maqaam moom laa doon wax sànq xaal du yàgg ci nit maa xalifa amutoon xaal maqaam la amoon boroom xaal day daanu boroom xaal dana wax ba wax loolu maam xalifa moom yorutoon xaal maqaam la maqaam moo gën a for xaal mm. euh, ci wàllu am na ci ñoo xam xaal lañ am boo demee ci sara bi ma lay wax muy jiyóoc mu ngi naan Cheikh Ahmad Tijaani lam yusta lam yusat bi sutuhaat mustadaanu mm. sutuhaat mooy la daloon euh, yeneen wàllu yi mm. ñu wax ba wax lu ëpp ba war a dagg seen doq <laughs> waaw loolu xaal la ndax dañuy dem ne maa fi jéy bi ilallah sama poos bi yàllaaye waaw waaw dëgg-dëgg loolu xaal la maqam nak moy da ngay and ak sa sago te li ngay wax makam nek mam khalifa maqam la ñaanon yalla maqam la xam go xamne ne maqam lay nek waaw de léeg nit dal mu ngi non tabarkala tabarkala bu ñentel ba wa talabtu alayka ya rabbi ma'rifata kay kiimaa wa nataaji ilmiha bi suhula mu ko ngi ñaan yalla sama bay yalla xamal ma mbóot motax tax seen waaw gu baax neen ay li ña seen yore buñ ko suulee réew mi daañu xiin te du taw de mm. <laughs> waaw waaw ah, suñu nijaay Ismaam Saax ma lay wax lu ma ne maam Xalifa lam yor boo ko suulee. Mm. dana xiin te du taw de. waaye ku laabiroon la ci mbóot. Mm. bari na ñum dimbale. waaw bari na dimbale lépp kenn mënee su ko wax. Mm-hmm. waaye maam Xalifa na ñum dimbale bari na ñum dimbale. bu mu ne ko waa am naa an saalihiin. wa banaatin saalihaat. mu ne ko yaa rabbi maa lay ñaan. Mm-hmm. nga may ma ay njaboot yu baax njaboot yu góor ak i jigéen njaboot gu yiw gu barkeel ka ca njëkk nag di taawam ñu naan ko alaaji mu tuuti te mooy alaaji Abdoulaye Niass muy tërandooru baayam mu ngi gane àddina mille neuf cent huit xoolal loolu moom xalifa dafa yàgg de jógee fi mille neuf cent quatre-vingt-onze mm. ka tegu doomam mu tuddee ko doomu baayam mm-hmm. muy baay baay baay Babacar Niass mm-hmm. kooku mu ngi gane àddina 1914 ci guerre ba mm-hmm. ci la gane àddina moo tax mu ñeme jógee fi 1996 ku bëggoon Seydi Ahmad Tidiane góor googu moom lañ denc ba ñëw teg kees ga kenn xamul ku ko yóbbu wallaahi yàlla mayaat ko baneen doom bu yiw waliyu yàlla man jàngal naa ci moom muy Balaji Omar Niass gis nga oustaz lépp lu mu lay jàngal daf koy indi ne la demal xooli ko maanaam jàng naa bi ñuy jàng burru pepp bu ñuy wax burru mm-hmm. ak xinta daf koo jëri indi ne mu ngi nii mm-hmm. waaw kooku mu ngi gane àddina mille neuf cent seize mm-hmm. jógee fi deux mille neuf muy wàllu bi yàlla nekk ko mag a mag yàlla mayaat ko doom ju baax muy bàyyi suñu xarit bi sanga dit bàyyam muy alaaji Amadou Niass ñu ko daan wax al waliyu kaamil wa cheikhul mawhub doomu mam xalifa la mu ngi fi mu ngi gën a 1925. jugee 1988 moog sëñ Mansour si ñoo maase. Mm-hmm. ak Cheikh Ahmad Tidiane si maktoum bii. Mm-hmm. Baye Amadou bu doon dund léegi mu ngi ci 93 ans bu doon dund. waaye yàlla gaaw a yóbbu dund ba waaye lu ne def la ko fi ci lu baax. Mm-hmm. moog sëñ Mansour si borom daara ji. ak Cheikh Ahmad Tidiane si maktoum. ñoo bokk benn at 1925. waaw yàlla mayal ko beneen doom bu baax. bu ñu tuddee Baye Aliou Niass jaamu yalla rek la xamone deddu adina soxlawul dara hmm? wallahi yalla xamna ko mu ngi gane adina 1928 jógee fi 2000 mu amaat banen dom moy khalifam tay ñu ngi tuddé warisu sir siri waalidihi nga xam ne moo daan bindal bàyyi moo doon secrétaire mo moo lu ñuy wax l'homme de confiance su maam khalifa si euh, li ñuy wax euh, ki li ñuy wax close body hmm. ko xam ko ko jege la bi hmm. Alaaji ibrahim ñess ci lew na ñaseen mu ngi gëné adina 1932 de nga ko ah, de nga ko mom moy khalifa bi mu ngi dund yàlla ko fi yalla yagal 1932 doy mam khalifa yi mag lañ ah mag lañ de yalla yalla gi 1932 la gëné adina mm-hmm. yalla mayat ko dom ju bax ju ñuy tuddé cheikh umayma cheikh umayma lu ko waral mo yaay mo tuddu umayma mm-hmm. waaw manam cheikh ahmad tidiane umayma ñas momit mm-hmm. tabarakallah mu ngi ko tuddé mu ngi ko tuddee sidi ahmad tidiane cheikh radiallahu taala moom mi ngi gane àddina 1940 yàlla ma yàgg doom ju digg arab ju fasa jàngale ba retraité ñëpp nangul ko tey mooy ilimaanu leew na ñeseen ñu koy tuddee saaxibu lisaanil mutlaq mm-hmm. wal xikamil baalix alisi jaala min nafsi hamsata waslin bayna usari diiniya mu ngi gane àddina 1945 muy papa arabi ñes mm-hmm. yàlla mayaat ko doom nag ah ñëpp naan ko jafalaa mm-hmm. daj adina siwam ak liggéeyam ak diplomatie ak xam-xamam ak léppam wa mm-hmm. tabarakallah muy Ahmad Khalifa Niass mm-hmm. ñu koy tuddee saahibul yeddi saxiya mm-hmm. wa siyasi al munhik anam borom loxo boo xam ne lu mu joxe ko xereñ ci politique ba kum songoog daani ko lum songol nga daanu fële mu ngi gën adina 1946 mu am nag beneen doomam ndeysaan boo xam ne nag moom la doon maam Khalifa wax naan sama doom jore leer gi ci xar penku bi mm-hmm. nekk dakaar la ci namoon te leer gi mooy wal fajri mm-hmm. muy Sidil Amin ñas mm-hmm. nekk rajulu i'lam buñ ko waxee mooy koo xam ni dafay liggéey ci wàllu euh, média yi taxawal groupe bu mag a mag wal fajri mu ngi gën àddina mille neuf cent cinquante caatu maam Khalifa Niass mu góor nag mu ngi tuddee Alhaji Bachir Niass moom moom damay wax ni English speaker la influent. You think that he, has, he was born at the United States, but it's not that he was born here in Sénégal. Therefore, dégg-dégg anglais banga nga foog ne. Mm-hmm. mu ngi juddoo Amérique. Mm-hmm. déedéet fekk dafa demoon rek. Mm-hmm. di fay liggéey. gane àddina 1955. di fay liggéey ba man waa anglais ci anglais man su ma tasee ak moom rek. dama naan ko hi my beloved Cheikh. mu ne hi. Ah, benn bés ñu waxtaan mu ne Khalifa was a minister mu ne ma Khalifa nekkoon na ministre. Hmm. ministère xam nga minister in Senegal means who is working at the administration hmm. or he is working at the department hmm. but the minister in United States means someone is working for the Tijaniya movement or someone is working for the department of God maanaam ministre ci Sénégal mooy kuréel département di liggéey mbay meek sàmm waaye ministre ci amérique mm. mooy koo xam ne da ngay gindi ay nit leen dugal ci diine mm. di gindi ay nit leen dugal ci tariqa kon la mam xalifa ñaanoon na yàlla yàlla nag may doom yu baax mm. wax la doom yaa ngi o umran tawilan ñaanoon na ko juróom benneelu ñaan ne yàlla yàlla nag ma may fanu gudd bir xeyri maamuron bi taat waaye nag waxuma fanu gudd rek o mel ni fanu mam keebaa njaay waaye fanu gudd woo xam ni dama cee topp yàlla laa wax kon wa gudduna mm-hmm. kar tali fi bàyyi mm-hmm. redd fi jakka mm-hmm. aji fi makka domam jum am nak dem nga makka dem nga fas dom yepp barke so yalla saaxo daane wax ne cey domi mil yi ab akmaran ak alayna aqmaran minal xanami mën a li qawmihim mun ni jang ne wuy su accès rek yalla da koy lo domi mam khalifa yi ñepp ay leer Hmm. tànn si bu la neex rek la luy olof di wax ne gambi lem lañ hmm. dañoo ëppante waaye dàqante wuñ hmm. kon dañoo magante waaye ku ne rek ak cër bala yàlla jox ma man toujours nag euh, maam Khalifa dama koy xool ci doomam bi dañoo yéeme kaar waaw dañoo yéeme Balaa Joomaan Ñas maam alaaji tuuti balaaji mu tuuti balaaji mu ndaw baay arab yi ku rek da gis mu am phénomène yàlla may ko ca loo xam ne loola kéemaan la mu ngi noonu comme moo ko ñaanoon yàlla mm-hmm. li mujj ñaan wa mashiqatan mm-hmm. ala ilmay zahiri wal batini ala wifqi ma yurdika wa yurdi rasulaka ya rab maam xalifa ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mm-hmm. maam ma ma nekk sëriñ xul ma nekk taalibi de taalibi mooy koy wut waaye ma dem ba nekk sëriñ di joxe ci ñaari xam-xam yi bu zahir ma nekk ci sëriñ maam xalifa bind na ci tasawuf xam nga ibnu Mayaaba daf ci gën a siiw ak Seydi Ahmad Tijaan ak yonent bi mm. am xalifa dafa taalif ci usul mm. taalif ci harut mm. taalif ci mantiq taalif ci bayaan taalif ci badiyow taalif ci fiq taalif ci miraas xeet xam-xam yooyu yëpp nga xam ne ñoo ŋànk diine daf caa bind dafa tolloon na ñun taalibi tijaan ku saaga sunu sëriñ dootuñ la may jàmm moo tax ñëpp mokkal juyoochu tulaa ma anta ilaka boodin waqaa mm. fi qunnati jibaali mm. aldatak sayaana fii waqaa bo yoom wooy mm. ne kullu unité wa kullu xukmin unité li sabab te axara ukumu ila daka sabab daanaka ñun moom la ñuy gën a mokkal ngir mere guñ mere ibnu yaaba ngir xaaskum xasan sidi ahmad tijaani waaye ibnu mayaaba dafa mel ni benn kaas ci xam-xamu maam xalifa yi ci taalifam yi dafa mel ni benn kaas boo tànkee ci géej loolu laa a xam ñiy déglu ba maraan xam ne man xassahu bi waa bil bayaani dafa siiw waaye dégg nga ko fa fa ziyaadu Ahmad Tidiane mu fi salaamun ala qabril munifi l mubaraki salaamu xalifin li dumui shawabik xoolal kaafi bu rafet boobu shawabik dama ko laaj Seydi dama ko laaj Balaaj Ibrahima Niass ne ko sa papa lu mu jamoo shabik di firi luy sotteeku mu jëmoo ko shawabik mu ne ma sama maam Xalifa dafa toogoon ci kaw naxu dafa ndar keppanaw daf ko naan lisim jëpp joo xam ne ustaas cam faailun la bu amul xel boo koy jam xoo fawailu ya, saahilun ji firi ngexal ya fas hmm. sawahilu jaahilun jawahilu hmm. waaw bi firi mbooloom xare hmm. jaafilun jafailu kon shaabikun kay shawabiku xoolal eh, kaafiye bu rafet boobu kon maam xalifaa njóog man damay wax ne toujours sama waxtaan dama lay wax ne maam xalifatu ñes bayna yadayk mu ngi sa kanam muy portale bu jege bu neex a xam mm-hmm. boko ko mi Sidi Ahmed Tidiane boko ko mu muy yonent bi boo ko xoolee muy Alaaji Abdoulaye Niass mm-hmm. wane ne kéemaan nag mm-hmm. wane ne kéemaan li may tëjee rek moy dafa am euh bo mu fi waaj a mo wo njabor njaboot gi yëpp ñu ñëw mu tëdd sàng li may wax balaj ibrahim Niass ko nek ko fi yalla yagal khalifa bi ñu koy nuyu au passage Bala ibrahim ni waw sama baay day mos nañu dajalé nañu sama lal bi day dembu ci guddi maag yonent bi ñoo fi tëdd ba bët set hmm. barki dembu ci guddii dembu ci guddii nak ñenti sahaba yi hmm. ñoo fi tëdd ak man tay ci yor yor bima jangé alcorane bay noppalu seydi ahmad tidiane mo tëdd ak man ñi nak hmm. dama leen baña bet man jël si ngeen na len ba ngeen am kër jangal na leen ba ngeen xam mm-hmm. yar naa leen ba ngeen yaru mm-hmm. jubbant naa leen ba ngeen jub mm-hmm. li des ci àddina du ngeen fi toog fuñ leen xasee wala fuñ leen xeebee maa ngay dem xaal nag laa bëgg ak cokeer <laughs> te noor la mu ne benn xaal daal la bëgg ak cokeer kilifa yépp ku yaakaar xalifa rek dem lukkati xaal ñu ko jëlee ci gannaaw kóosi ñu ne ba suñu mam wa nafaana barakati moo ko lijjanti cokkeer gi nag koo xam indi na cokkeer waaw waaye ñu ne ca mbaaxam nga dañ ko tegee mën waa dem ne ñu leen di cokkeer pare dem fexe ba jël ci genn waaye kenn xamut gu kan la kena maa ngi tooñ bala ibrahima maa ne ko mbaadu daa jël sag cokkeer yi mbaa da jël cokkeer ak sidi lamine yi da dafa jël cokkeer ak sidi ahmed yi wala dafa jël cokkeer ak bala joman yes yi ku ne rek ci doy mu tudd ko ko mu ne ah, genn ci ke dal la ci jël jox ñu ñu toon ci suba sa nak ci yor yor nak ndaysan mu tëdd ci tudayam bu jekk ba ya lalam ba mm-hmm. di wax nak ah wali yalla baangi ngi dem waaw sax mu ne kenn mu ko gis mm-hmm. ah defal katu to yalla baangi dem di eh xarit cheikh ahmad tidiane ngay wuyu ju borom mom ba ni la mujj wax mom khalifa ñess ba fi nak basamatun rasiqa bu kenn dut fàtte mm-hmm. ba fiy téere mm-hmm. ba fiy njaboot mm-hmm. ba fiy tool ba fiy soppi man mii di waxtaan ak yéen kenn laa ci soppi lool loo xam ne dañ ma ko nampal man yu daan toog nañu ma leen jox dasu tey nag maa leen jox dasul min xalifati alaajo ala min xalifati ñas fi saxaa'ihi wa ilmihi wa karamihi wa juddi radiallahu anhu ajmain macha allah macha allah mu ngi noonu Lamine Sakho xam ne wax dëgg yàlla kenn nattaabalewu ko si kër gi bëgg kër gi lool kon nag euh, mbir maa ngi noonu yéen ñiy doon teelu nay lu maram ngeen àndoon ci Ousmane Thiam euh, ma jiit ñi yebal ma fii ànd seeg samay samay mag Idrissa Dioum Babacar Touré Ibrahima Safiou Niass Almasour Ibou jaw kon nag mu ngi noonu waxtaan waaye noonu Ibou Diaw euh, Idrissa macha allah damay saxo andil nañu tey loo xam ne solo sax fa tabaarakallaahu jërë ngeen jëf